asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baal xaq te di leen baal xaq tey ñaan sunu borom boo leenu jéggal noo ngi dellu di tuubal yàlla sunu boroom ci mbooleem sunuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf te bokk di ko ñaanit mu nangul lu mbooleem sunu yiw canam toll te bañ a xool sunu matadi ak sunu doyadi ndax melow doomu aadama yu mu nu bindee waaye muy xool ci noonu rekk yërmandeem ak njëggalam ak tawféexam di ñaanal bokki jullit yépp it fuñ mën a nekk yàlla defal leen jàmm te defal leen sutura te defal leen kaaraange te defal nu ak mucc musiba yi ak balaa yëpp di ñaan sa borom teggi ko lim ni ci jubloo it muy am nattu it yàlla nu may xolub muñ ndax yàlla kat moo sañ ci nun lépp ndax moo nu bind moo nu moom moo nu melal moo nu kàttanal te moo nu fi indi it te gannaaw dafa wax ni xalaxal mawta wala xayaata li yabluwakumoo ayukumoo ahsanu amala yàlla dafa bind dee door a bindi dekki muy dafa daf noo bind ci daf dafa bind ñàkk ak am door a dikk gannaaw ak ñàkk nun ñi ñëpp kenn ku ci nekk xam na ni amoon na jamono bopp xamoo foo nekkoon xamoo woon ci sa bopp dara sunu borom dogal nga dem ba am waaye nag lam ca teg mooy dinaa leen natt ba xam kan ci yéen moo gën a rafet ay jëf jëf pas-pas mooy li koy laytaay nit ki nag nam pasoo su jëf ji dikkee ca ko suñ borom di àtte kon nag bu ay nattu dikkee te nun noo wax ni kat gëm nan nun jullit ñi kon dañuy jàpp ni kat ki nu bind gannaaw ci ak ñàkk gannaaw ak ñàkk day mel ni kon moo teg nattu boobu kon la war nun ñëpp nag mooy muñ xam ne mooy ko moo ko sañ de moom yàlla moo ko sañ ndax boo xoolee adduna bi yëpp kat kenn ku ci nekk yoon mën a aw ngir fexe mbas mi teggee ko fi ma nga ca ci coobaree sunu borom yañ cay feeñal it mu nuru ay saafara it loolu lépp it ba tey coobaree sunu borom la sunu borom ni mu bind yeneen jàngoro yi noonu la bind it jàngoro ji rek ni mu ni ay doomu aadama it noonu la bind jàngoro ji kon nag loolu lépp ci coobareem rek ci lay dox ni nga xam ne ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk ci coobareem ci nga yëngoo ci coobareem ci ngay dal ah li ngay am lépp ci coobareem nga koy amee li ngay ñàkk lépp ci coobareem nga koy ñàkkee kon li xew lépp coobareem rek la kon lanu war rek mooy alhamdulilahi ala kulli xaal loolu moo war jullit jullit ñëpp ndax kat lépp ci yàlla rek la bàyyi koo ñëpp ci yàlla lañ bàyyi lépp it ak ñëpp it yàlla la ñuy dellu lu dul yàlla am na fa mu tàmbalee am na fa yam kullu shay'in haalikun illaa wajha lu dul yàlla lu ñu fi gis mbaa ñu dégg ko dana mel ni lu musta am kullu man alayha faanin yàlla rekk it mooy des ba fàwwu lu dul yàlla day jeex tàkk ku dul yàlla it day jeex tàkk yàlla rekk mooy aji des ji kon nag bi mu nu indee ci kaw suuf nun ñëpp lay sun war a gar doon sunu yitte ci lu jege ak ci lu sori bàyyee ko xel moom yàlla sunu borom boobu yi bàyyi xel yàlla moom yi nag faaw nu yar nu ci boo gisee kat tarbiya munta ñàkk mooy yar nit ki ba mu xam boppam su boppam leeree ci moom da koy daal di tegtal boromam su boromam leeree ci moom lépp lu mu gisati daf ko cay gis lépp lu mu déggati daf ko cay daal di dégg su boobaa lay lor jàmm bi duutul yomb ndax nit ki moom heure bu àggee ci loo gis gis ko ca loo dégg dégg ko ca moom yàlla sunu borom subhaanahu wa taala sa bopp réer la. yàlla feeñ ci yow su boobaakat kat da nga xam ne lu dul yàlla ak neen la te jullit bi nag bu agsee foofu dootul mën a tey gis boppam ni jullit bi su gisatut boppam day am defaru gu mat sëkk ndax su boobaa dootoo gisati say jëf ki nga gis gannaaw ci sa bopp kooku ngay gis nit mooy mooy borom jëf ji su boobaa dara dootu ko mën a tey lorati te te yaar li gën a doy ci ab jullit mooy gis sa bopp ndax daf lay yàq ak lépp lu ca tegeeti nit ki nag bu ko boppam réeree ka feeñ ca gannaaw jëmmam joojee di suñu borom mooy teew ca jëf ja ba tey ndax day xam ne li ko dàq moo fa teg su boobaa nit ki day daal di defaru mooy tax ak defaru du lu mën a ñàkk kon nii ngeen di def waxtu wu ne muy taw wala mu naaj mu guddi wala mu bëccëge am ci ñoom am ci ñoo xamante ni fu ma man di nekk ñu dagg seeni tànk da ñu dagg seen yitte yitte yi bari na de waaye yitte ji jëm ci yàlla moo ci gën te balaa bindeef bee xam loolu ko dañoo takk ay tànkam takk ay loxoom di ko delloo ci boromam su boobaa lépp lu mu woon lu dul yàlla boromam subhaanahu wa taala ko réccu kon su ngeen daggee seeni yitte ak seen lépp dox ngir ñëw ngir jëmmi yàlla ak yonentam ak jëmmi Seexul Xadiim fekk nu fun man di nekk loolee day lanu war nun ñëpp mooy nu delloonte ci yàlla mi nga xamante ni moo waral loolu lépp dellu gi ci yàlla nag dañ koy tàmbalee ci sëriñ bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am mbokk mu baax mu yàlla leeral xelam dafa am waxtaanu muy faral di def ci seen kii yi nii démb mu yónnee ma ko ma di ko déglu di ko déglu di ko déglu ba waxtaanu jeex bi ma koy déglu bu ma doon tontu ci liñ ko laaj na ma ko doon tontoo rek noonu la ko indee moom loolu lépp it ma di ci santaat yàlla sunu boroom xam ni moom la du moom kiy wax du man waaye yàlla sunu borom la subhaanahu wa taala xam nga léeg leen nga dégg sunu bokku bokki taalibe yi ku ni gëm ragal yaakaar sëñ Tuubaa rek laa ko def ak wóolu ki nga xamante ni xamut mën naa jàppe ni loola ak bokkaale la wala dara la waaye fii ne kenn mënta gëm yàlla te gëmoo yonent bi gëm yonent bi moo war a jiitu gëm yàlla bu benn jullit jàpp ni gëm yàlla jiitu ndax yàlla mënoo koo gëm mukk mukk mukk te gëmoo ki la koy wax kenn mën naa gëm yàlla te gëmoo ki la koy wax ah ngaa wóolu yàlla te gëmoo ki la koy ki koy wax mën ngaa yaakaar yàlla te gëmoo ki la koy wax mën ngaa doyloo yàlla te doyloo woo ki la koy wax loolu mënta nekk doyloo ko mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwee ne yàlla moo ma yónni booba lañ dégg yàlla nu xamun ko moom lan xam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yàlla nee na ñu ne ko yàlla mi ngay wax mooy kan balaa ngaa jàll ca yàlla ma muy wax il faut moom mi la wax yàlla nee na nga gëm ko doyloo ko am yaakaar it ci lim lay wax wóolu ko it ci lim lay wax boo liggéey nag yàlla moomee ma ca mu cay teg di la ko leeral di la ko wax yàlla day mooy ki tàmbaliwul fenn mooy ki mu yemuwut fenn nu bind moonu moom moo nu melal moom la ñu war a wéetal moom la ñu war a jaamu ci jaamu ko am njariñ yàlla moo bind malayka yi moo bind aljana moo bind sawara moo bind yonent yi njëkkoon moo leen yónni woon su ko defee yooyee nag moom gëm gi nga ko gëm ak wóolu gi ak doyloo gi ak yaakaar gi mooy tax loolu lépp nga mën koo jàpp waaye bu loolu amul doo ko mën a jàpp yonent bi sallallahu alayhi bi muy ñëw ay gaay yàlla dikk ba ku baax ki feeñ di jëwrinam di liggéey yàllaa konam loolu yi da nga koy sëmbatal ci moom door mën a jàpp yonent bi door mën a jàpp yàlla loolu yi mooy déggin wi leer mooy déggin wi set sa kilifa soo ko doyloo amoo yaakaar ci moom wóoruwoo ko su boobaa lam lay wax ci yàlla doo ko jàpp nit bala laa waar waar nga dugg la li muy wax day fekk kooko doy la kooko nga wóolu ko kooko nga am yaakaar ci moom mooy tax lam lay wax nga mën koo jàpp ndax diine kat lépp yaakaar na ndax lépp kumpa la yuminuuna bil xayb loolu la suñ borom tagge ñi ci des moom la tagge way gëm yi mooy dañuy gëm ci loo xamante tegaguñ ci suñ loxo loolu mooy ëb mooy ak njullit gëm loo tegagut sa loxo nag il faut ki la koy wax kóoluteef du ca ñàkk yaakaar du ca ñàkk doyloo du ca ñàkk kon lool yi mooy li am kon li boole sëriñ ak taalibe mooy fexe ba defal ko taqal lii mooy rikk ko ci wépp melawu suñu borom bi subhaanahu wa taala gërëmut def ci moom taxal lii mooy takkaayal ko melo yi nga xamante ni moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala gërëm mooy tax nañuy bokk di gën a góorgóorlu di gën a farlu fonk julli juróom fonk jàng alquran fonk jàng xasiida fonk tudd yàlla amma dawaamu zikri fa ak akbaru min kulli ma kaana muridi yukk siru saxal tudd yàlla lu taalibe bi di def mooy li ko gën bu fekkente ni nag dañ ay taalibe lañ doo tudd yàlla doo jàng alxuraan doo jàng xasiida loolu day daal di doy waar te yii kat dafa am lu muy jariñ ab jullit dafa am lu muy jariñ ab murit loola mooy lan daf nuy rékki ci pas-pas yi suñ borom bi subhaanahu wa taala ndax kilifa kat ñu koy wax mooy koy roy muy def ci yow ak njub su boobaa yow bul natt kilifa gi ni ma koy waxtaane waxtu ne bul natt kilifa gi ci sa bopp sa bopp ngay natt ci kilifa gi bi ma àndeek moom mu di ma digal di ma tere may jëfe li may sant di bàyyi li may tere lan la ma jural ci ñàkk rëy ci ñàkk añaan ci ñàkk ñistal ci wax dëgg ci ñàkk gis sa bopp ci ñàkk naw say jëf kilifa loolu lañ koy doyee bu ñuy wax asayq muy ab sëriñ looloo tax ñuy waxub sëriñ mooy koo xamante ni kat soo taxook moom dana la riik ci jaamu lu dul yàlla di la jaamuloo yàlla sa borom subhaanahu wa taala dana la rikk ci jaamu bakkan dana la rikk ci jaamu bànneex dana la rikk ci jaamu adduna dana la rikk ci jaamu nit ñi waaye yàlla sunu borom moom la lay tegtal yàlla suñu borom it moom la lay jaamuloo ndax loolu mooy tax jaamu am njariñ su boobaa jaamu gi mu lay jaamuloo yàlla nga nekk ca moom itamit mu nekk ca loolu mooy tax bu ëllëgee nga gis ko ak nga ñàkk koo gis sa mbir dana defaru sa mbir dana baax loolu yi fu ñu toll nun taalibe yi nañuy bàyyi xel loolu ba tax ne li nu bi di sant dina ko digal ñu maase di ko bàyyi xel bu baax ca dara gënu cee wér li mbind waaye boo xoolee noonu ñi ci ëpp ci taalibe yi dañuy bàyyi li sëriñ bi bind mu leer naññ di déglu fi ay xoraafaat yoo xamante ni doo xam fu mu tàmbalee doo xam fu mu yem nga di ko xayaal di ko xalaat te du du la dikk dara te nit ki li gën a wér te gën a wër loo mën di dégg del xool sa bopp li may wax waxtu nit ku ne sa bopp na doon sa nattukaay sunu dox jëm ci yàlla sëriñ bi duñu wommat sunu bopp nay sunu nattukaay jikko yi sëriñ bi wax ni yii taalibe bu ko amee du mën a yéeg jëm ci yàlla ñu di ñu jël jikko ya teg ko fi suñu kanam jël seetu mu dib seetu ñu di ko xool nan lañ def ci rëy nan lañ def ci njistal nan lañ def ci wax lu dul dëgg nan lañ def ci rëy ak añaan ak xeeti jikko yooyu yëpp yooyu feeg dañu ci nun nanu xam ne nu nekkagun ay dëgg dëgg taalibe ndax buñ ñuy wax murid sadiq dafa am ay sart waaye nit kii boo xoolee sart yooyu bala caa nit a yéeg da nga rékk ko ci rasaa ilal xal bi yëpp ba set ca wicc dooru mën a yéeg ca loola léegi nag ku tëb ñu ne diw day murit saadaq la te loola day dana laaj seede dana laaj seede ku baax ki defe naa ni ñu bari dégg nañ ko am na koo xam ne ba mu koy bindu leetar ki mu doon binduloo bi mu bindee kilifa ga def caa def diw murit saadaq sëriñ bi naka naka ndax yow yaa ko seede ndax yow yaa ko seede ndax nit kët bala nga ni diw mi murit saadaq la da yow war nga caa am seede mu ngi mel ni tey nga bëgg a tagg soxna si jàmbur wala nga bëgg a gërëm soxna si jàmbur ah yow de xamoo lu muy fanaan borom kër bi xamoo lu muy xëyeek moom xamoo lu muy yendoo ak moom yow amaana ñëw nga ci kër gi rek may na la ndoxam naan bu dee séeréer nga jox na la ceeb nga lekk ba sa biir fees nga ne soxna see fi gën am nga ca kumpa de xamoo lu mu fanaan ak mooy tax nit bala ngay wax seede ci nit dara nay loo xam ni ki noonu bala ngay wax ci nitub safaan it nay loo xam ab safaan sax moom dafa ëpp wax ci nit ndax comme doon ci noonu sa ayi bi bopp na la doy sëkk ndax li may wax waxtu ne kat ayi bi jàmbur du la lor ku ne ci noonu ayibam moo koy lor mooy tax wàllu jikko nañ ciy gën a góorlu bu baax wàllu wéetal yàlla nañ ciy góor góorlu bu baax bañ a jaawatle diggante yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi ku ci ne dafa am tolluwaay bu mu nekk yooyu yëpp ñu bañ koy jaawatle tawxiid dafa xaw a sew bañ a doon koo xamante ni da ngay topp ci li nit ñi de wax nga di ca wax déedéet loolu ba tey du jikkoy ab taalibe ab taalibe lu muy def da caa war ak xam door a jëfe sëriñ bi daa wax ne nañu jiital xam door a jëfe noonu waxambaane yi bu dee ragal nañ kàcc ëllëg ni ñuy yittewoo sunu àdduna jag nañ def yitte ju raw jooju ngir sunu àdduna jag kenn ku ne ci noonu fi mu ne la koy may adduna ju jag ma nga cay xëy ma nga cay gont ma nga ko jaral lu ne yitteem jëpp mu def ko ci yitte jooju ñu ci def nag bu ñu ko defee sunu àllaaxira jag ngir xam suñu diine mën koy dund mën koy jëf te yàlla tax des na ko def li may wax waxtu ne fii ne tey ku wax nitu yàlla yu njëkk yi ak gaa yi daan jox jëm ci yàlla bu njëkk nañ daan def foog guddeeg tudd yàlla gu bareeg jàng alxuraan bu bareeg yooyu yëpp daga naan loolu xanaa mëneesu ko lii ñuy def a gën a miti fopp te ko kenn ku nekk yaa ngi dëkk ci sab téléphone tàyyi woo ca yuqatoo ca tàyyi woo ci sab téléphone yuqatoo ca da ngay dem ba ni këndëng nelaw rek wala nga necca necca ba xam ne jëdoo tudd rekk waaw te doo ko yëg man nga cee def ñetti waxtu ñeenti waxtu ci sab téléphone ci guddi gi te doo ko yëg ni la noo loolu yi ni nga tàggate sa bopp wala ni nga tàggatoo ci loolu ba mu neex la koo ko tàggatu ci yàlla mu dàq yàlla dàq loolu fopp lu mu mën di doon dem nit ki su ca tàggatoo rek da dem ba àgg ci fu la jaaxal mooy tax nit ki lépp lu muy tàggatu nay lu koy jariñ ci àdduna mu di li koy jariñ ëllëg yow mal xiyaam nañuy bokk di góorlu bu baax nañuy bokk di farlu bu baax di tuubal yàlla suñuy rëcc rëcc ndax benn jaam nag matut faw ñuy def yi fi matadi ndax yàlla moo nu bind ci ban ak ndox faaw rek matadi di am waaye lan mooy matadi doomu aadama mooy foo foo defee benn rëcc-rëcc nga tuub dellu ci yàlla xam ne ah def naa lu yellu de def naa lu jékku def naa lu jaaduwu ah waaye yow day yaay borom mbaax yaay borom yërmande tuub dellu coow yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo gisee ni ñuy bégale ngir bañ ñuy naagu ci def ay rëcc rëcc ba defee ne suñu borom duñu jéggal dane su ngeen ko dutoon mooy it may wàcce ñuy mooy yàlla ne bu ngeen ko dutoon mooy ma wàcce ñu fay ñu fiy mooy waaye di ma tuubal ma di leen jéggal kon jullit bi du ñàkk yaakaar mukk ci ci boromam subhaanahu wa taala mooy tax nañuy tuub nañuy tuub nañuy tuub li waral musiba yi ak balaa yi li ci ëpp kat mooy dañuy def te duñ yëg ni ñu ngi def loolu mooy musiba mooy di def ak mooy yàlla te yëgoo yaa ngi koy def loolu nag jullit du du def waaye booy def ak mooy yàlla yëg ni man mii def naag mooy yàlla am yëg-yëgu tuub ak dellu ci yàlla lu mu baamu ak lu mu bari bari bari yaa ngi tuub yàlla di la jéggal loolu nañ koy bàyyi xel baax nit lu mu sori sori sori ci lu baax ak lu mu ca farlu farlu farlu bu mu gis boppam mukk bu mu naw boppam mukk soo defaroon li gën a baax boo doon yendoo julli julli fanaanee julli dëkk jàngal xuraan dëkk saraxe lu ne baax nga di ko defit waxtu woo ko genni koo yépp yàqu lu jaamu yàlla bari bari bari bul ko gis lug mooy yàlla bari bu mu la tax a naagu lug mooy yàlla rëy rëy rëy rëy bu mu la tax a naagu ne du ma am ngërëmal yàlla wala du ma am njéggalug sunu borom nañuy boole ragal ak yaakaar bu ñu naw bu ñu xeeb kenn mbindeef mu man di doon buñ ko xeeb ganaar gooy romb sax bul ko xebu ko wala ak mbindeef mooy li yàlla gën a teral xamuñu ci lu ñuy mujj ak mujj rekk am solo nit réer gi ñu réere sunu mujj ni ma koy waxtaane waxtu ne war na noo doy sëkk yitte ndax kenn xamut ci looy mujj kenn xamut nooy génne àdduna kenn xamutit lu lay génne àdduna ne ci xalaat boobu rek war na noo doy sëkk yitte nit njëkkee nag am mujj ak ñàkk nit njëkkee nag ñàkk mujj ak am nit njëkkee na wér mujj ak wéradi nit mujj njëkkee na wéradi mujj ak wér yooyu yëpp yàlla daf koy soppaxndiku ci nit ñi te xamoo yow yaa ngi dund génne goo àdduna nan la yàllay soppax ne sa dund ak nan la koy wëlbatee ak nan la ciy doxalee loolu lépp ci kanam la nekk te xamuñ ci dara mooy tax buñ xeeb kenn nañ jërëm bindeef yëpp te yàlla tax nañ suturaal bindeef yëpp te yàlla tax li ñu yéene suñ bopp nañ ko yéen bindeef yëpp te yàlla tax kenn ku ci nekk yàlla noppi na ci moom bul añaane kenn la ma am lu waay am yéene kook ba mel ni yow yaa ko am yéene nit ab safaan taxul mu am ko de yéene nit lu baax it taxul yàlla jottali ko ci waaye yéene nit ñi lu baax moom dana tax a am lu baax waaw ñu xam ni dara lu toll ni dee dee mënut a yëngu ci lu dul yàlla kenn mënunoo jariñ mbaa mu loru ci lu dul yàlla bu ñu ragal kenn ku dul yàlla nañuy wattandiku ay seet ak yooyu yëpp nañ koy wattandiku lépp lu gërëmut lu yàlla gërëmut nañ koy daw suba ak ngoon fu rëcc rëcc amee nañuy tuub daw dellu ci yàlla subhaanahu wa tey séentu njërmaandeem tey séentu njëgalam nañ fonk tudd yàlla nañ fonk tudd yàlla nit suñ la joxee ngànnaay ab noon a ngi ñëw ci sa kaw ngànnaay lii rek moo mën a dox sa digganteeg noon bi téyel ngànnaay la bu dëgër waaye sàggane tudd yàlla sàggane ndigal yi ñu la jox yaakaar ni kat yow da nga mucc ah loolu it ak nax sa bopp lay doon amee sa tawat du leer nañ ñi docteur yi xam ne yow mii na nga mën a dal lii garab sàngama koy faj njëkkati garab ko jox la nga teg ko fee tawat ju yokk mbaatus kare rek loolu nag nañ koy bàyyi xel nañ fonk tudd yàlla lu ñu xat xat xat xat xat xat xat lu yitte yu bari bari bari yi ñuy war di def ngir tudd yàlla nanu koy def loolu nañ koy bàyyi xel ñun ñëpp ku ne ci noonu na koy bàyyi xel ndax lii dox suñu digganteeg seytaane te seytaane ñu dugg moo nu ca dugal loolee war nañ koy fonk war nañ cee góor war nañ cee yokk suñu yitte noo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara ko nag mu bokk nu jéggal mbooleem suñuy rëcc rëcc te nangul nu mbooleem suñu yiw kenn ko ci nekk lam bëgg yaakaar ko di ko yóotu yàlla mi mën a jàpp ndal yàlla na ko ko yàlla jàpp ndalal ku ne lam ragal bëgg caa mucc àdduna ak alaaxira yàlla na yàlla dox diggam ak loolee zaahiran wa baatinan ku ne lam bëgg ci boppam bëgg ko ci njabootam yàlla na ko caal defal lu kaw njottam nun ñëpp yàlla dëgëral nu ci siraatal mustaqima dox suñu digganteeg saytaane musal nu ci ndog yeeg pakk yeeg musiba yeeg balaa yëpp defar nu ba nu wees a yàq mu làq nu fi yàq yëgut te bokk nu defal mujj gu rafet asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yàlla